wàllu yi waajtaay ji a tënk. waaw ni ñu ko waxee rek dañ fi daje tey ndax waxtaane lu jëm ci mbirum inondation ndaxte xam nañ ko li ci des ñu dugg si nawet bi bëriwul ba tax na ñu jàpp ne dañoo war a fagaru balaa ay inondation di ñu bett duñ ci mën a def dara loolu tax ñu dajale fi euh, autorité administrative yi dajale fi tamit euh, service technique yi ak élus territoriaux yi pour ñu def le point xool ci région de Thiès fan la ñu am ay bërëb yoo xam ne. faral na di am inondation ñu identifier leen te bu ci nekk tamit ñu jéem a xool ban mesure lañ mën a jël ba tax euh, inondation bu amee ñu mën a def mën a def face. yan waaw li ñuy jël faral di njëkk a def daal mooy bu nawet di jub si ñuy def li ñuy wax curage des canaux des canalisations plutôt maanaam euh, yoonu ndox yi nekk ci biir dëkk bi canal yi ak yu mel noonu ñu wax collectivité territoriale yi ñu taxaw ndax jéem ko setal. su boobaa bu taw bi ñëwee ndox mi du mën a taxaw dina mën a jaar ci canalisation yi du toog ba gàllankoor askan yi waaw leneen li muy def tamit woo nañu ñëpp ñu engagé wu muy service technique yi ak maire yi d'ailleurs am ci ñu ay engagement par rapport à ay moto pompe ak yooyu parce que ni ngeen ko xamee li ci gën a ëpp mooy am na ay endroit yoo xam ne ay moto pompe lañ fay def di pomper te loolu dafay laajte ay ay moyens même curage bi tam day laajte ay moyens parfois yoo xam ne suñu commune bi duñ ko am ba day souvent ñuy wut appui niveau central pour yenn engin pour mën a def euh, curage bi ni mu ni mu mu gën a baax. te moo am na ay réalisations nañ koo def. waaw euh, waaw am ñu ci def waaw xam nga mbir ñoom dañuy améliorer at bu ñëw rek te daaw mbir mi yegoon na foo xam ne. kilifa réew mi jëloon dogal def plan Orsec ci plan Orsec boobu am na lu ñu fi jot a def ci ay réalisation ak ay ouvrage am na yu mat am na yu matul am na yu commencé gul mais daal ndànk-ndànk ñu ngi améliorer réseau bi li ñu ci gis ci ay jafe-jafe nag mooy am na fi ay bërëb yu bëri yoo xam ne askan bi dañ koy dañ koy fàtt dañ koy fàtt ba tax na ndox bi du mën a mën a dem ni mu war a demee ñu bëgg a profiter ci occasion bi rek woo ñëpp ni ñu woowee maire yi woowee service technique yi ñu woo tamit population yi ku nekk fi nga féete nga mën a jouer rôle bi nga war a jouer te moytu di fat li nga xam ne mooy canalisation yi fi ndox bi war a war a jaar. te moo ne maire yi léeg-léeg du ñu am ay jumtukaay pour mun koo fa ni waaw c'est ça loolu lañ wax léegi rek mooy jafe-jafe logistique yi ñu am. ba may ba may euh, souvent bu amé dañuy soxla ndimbalu niveau niveau central légui lepp lu fi identifier ci ay gàllankoor am na loo xam ne mën nañ ko jël en charge niveau régional dinañ ko jël en charge niveau régional li nga xamné ne ñu ko jël en charge notamment problème logistique yi nga xamné moy tax ñu mëna a curer yenn canaux yi dañuy obligé euh, rendre compte niveau central ñaan sen accompagnement té amnañ nañ yaakaar dinañ ko am pour mëna fatal ni canalisation yi. Merci beaucoup. Nous nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'un CRD pour aborder la question des, inondations. Nous le savons, nous nous acheminons vers euh, le début de l'hivernage. On a choisi ce moment justement pour réunir les acteurs, l'ensemble des acteurs, les autorités administratives, les élus, les services techniques pour échanger sur la, situation des, inondations dans la région de Thiès. La rencontre nous a permis de faire le point à l'issue des CDD qui ont été d'abord tenus par les préfets pour voir un peu les différents sites au niveau de la région qui sont concernés par la question des, inondations, mais pour identifier également tout ce qu'il y a comme euh, mesures à prendre pour nous permettre de faire face à d'éventuelles inondations au courant de, l'hivernage à venir. Qu'est-ce qui sera fait exactement au niveau de ces points chauds Oui, au niveau de ces points chauds, il y a eu déjà des mesures qui ont été des travaux qui ont été réalisés par endroit dans le cadre du plan Orsec qui a été déclenché l'année passée. Alors, pour cette année également, on est revenu sur tout ce qui y a comme travail à faire, notamment le curage des, canaux, mais également euh, l'achèvement de certains ouvrages qui ont été, qui ont été démarrés. On a également euh, euh, partagé un possible dispositif à mettre en place en matière de, de, pompage parce que nous avions un certain nombre de points où les eaux stagnent et où on a souvent quelques difficultés pour que l'eau puisse couler naturellement. Du coup, les solutions sont souvent la mise en place de motopompes pour tirer l'eau et puis pouvoir libérer les espaces occupés et permettre aux populations d'être dans de bonnes conditions. Et pourtant, le, système à caisse, on a un bon réseau d'assainissement, mais les maires l'ont noté, ils ont un problème curage. Ils n'ont pas assez de matériel pour réaliser cette euh, travail. tout à fait, vous l'avez dit, le réseau il est, globalement bon, ça a été dit par, par les services qui sont là. Ils ont des difficultés euh, par rapport à certaines canalisations, ils ont besoin de moyens lourds dont ils ne disposent pas. Euh, et souvent on fait appel au niveau central pour venir à notre rescousse. L'autre difficulté fondamentale, c'est que nos canalisations sont le plus souvent obstruées par comportement de populations qui versent euh, différents types d'ordures qui ne permettent pas l'écoulement naturel des eaux. Mais toutes ces questions ont été évoquées et les collectivités territoriales ont été appelées, elles ont pris également des engagements pour procéder dans les meilleurs délais au curage des, des canalisations. C'est également l'occasion d'appeler les populations à plus de de responsabilité, à plus de citoyenneté, pour qu'elle puisse éviter d'obstruer les voies de passage euh, des eaux.